ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ñi fi teew euh, di gërëm euh, sama dëkkandoo yi nga xamante ne ñëw nañu def déclassement bi déplacement bi tey gërëm euh, imam bi nga xamante ne moom moo jiite la grande mosquée de Cité Senghor gërëm le représentant donc du xalif général de Bambilor di gërëm le représentant donc de Sëñ Idrissa Gueye gërëm samay goro yi fi toog di gërëm sama xarit yi fi nekk wax nañ ne ku lim waaye ma jéem rek euh, ndax euh, nit ki boo amee mbégte il faut que nga jéem di ko wane à travers li nga xamante ne moom mooy ay citation suñu jigéen yu yu ñaawul yi nga xamante ne macha allah lépp lu euh, loo xamante ne antu rek ci ñoom la seen loxo la jaar donc ma leen di gërëm vraiment ci seen i kàddu ci seen taxawaay ak ci seen i pas-pas ndax loolu la ñu soxla tey ci àdduna bi di wax ni ñun kat lenn rek moom moo guidé suñu action ndax mosuñu def politique. waaye lu tax ñu décidé def politique c'est parce que comme yàlla def ñu jagleel ñuy liggéey ci tabaxum réew ñu gis ni Sénégal mu ngi ci ay situation yoo xamante ne amatuñu sañ-sañu toog naan loolu suñu yoon nekk ci ndax ñun li ñuy def ñu koy def lu ñuy am ñu koy am wala li nga xamante ne moom mooy suñu liggéey moom doy nañu donc ñun duñu ñëw di engagé wu Sénégal bu ñu defee nag constat boobu ba taxaw ba xool ñu ne ah kat ñun kat il faut ñu jóg. sowwu ci biir politique bi ndax ku deful politique ku ñëw warul def politique def ko à sa à place kooku waroo ko nga euh, ngaññi wala waroo ko mere bu nekkee dafa def loo xamante ne euh, ànduloo si loolu moo tax ñu jóg jël suñu responsabilité ne lépp loo xamante Sénégal soxla na ko ci wàllu xalaat ci wàllu taxawaay nañ ci def suñu loxo parce que nous le devons à ce loolu moo waral ñu jóg ak ñeneen nit yi nga xamante ne dañu ànd ak ñun ci ngëm-ngëm ànd ak ñun ci principe ànd ak ñun ak ay valeur xam ni réew mi bu nekkee jóguñu pour defar ko ah euh, première conséquence yi nga xamante ne moo ci nar a juddu ñun ñoo koy vivre ñun ñi ñoo koy vivre ba pare suñu doom yi di ko vivre ndax tey ñëpp xam nañ ni ci àdduna bi ne nit ki mën na dem ba jàng fii Sénégal doomam yi am ay lijaasa te mënuloo wax waat ne kooku lijaasa bi bu ko amee dina mën a liggéey loolu il faut mu arrêté li tax ñu mën ko arrêté parce que am nañu ay jumtuwaay yu ñu mën a permettre ñu mën a jox à chaque citoyen sénégalais chance bi ngay mën a permettre mu mën a gis boppam ci réew mi moo xam ci wàllu liggéey la moo xam ci leneen ak leneen la ñun nag ci tànk yooyu la ñu nekk nag nekkuñu ci tànku euh, caaxaan nekkuñu ci tànku euh, ay xaste nekk nekkuñu ci tànku euh, débat personnel li ñu su li nga xamante ne moo ñu soxal moom mooy relever le niveau du débat indi ay solution aux problèmes qui se posent à ce pays loolu moom mooy ñun suñu taxawaay taxawaayu jàmm la taxawaayu jàmm la taxawaayu indi ay saafara la mais préciser euh, euh, ci euh, jiiri saabalkat yi fi nekk ne ñu opposition la ñu nekk nous sommes un parti politique que nous venons de constituer qui se positionne dans l'opposition te posi positionnement boobu dafa di doon lu leer te li tax ñu positionné wu dans l'opposition parce que dañu bëgg a am suñu liberté d'expression suñu liberté d'action dañu ko bëgg a am ndax li doon euh, yomb pour ñun moom mooy ñëw rek ñu bootu ci ginnaaw kenn ne ñu dem mais dañoo jël choix bi gën a jafe moom mooy nga demal sa bopp parce que dañu gëm ni principe ak valeur yi war a tax réew mi mën a dem de l'avant loolu ñun ñoo ko war a mën a incarner ñun suñu bopp te allah ñu ba incarner le projet politique que nous souhaitons proposer aux Sénégalais en 2024 su boobaa nit yi dinañ ni liggéeykat yi ñëw nañu. liggéeykat yi ñëw nañu que ce pays li mu soxla maa ngi leen di euh, rassurer que li Sénégal soxla pour assurer son développement de façon définitive mu ngi ci biir réew mi. la question se pose en termes de choix et de priorité. et ñun nag choix yeeg priorité yooyu xam nañ fan lañ koy jaaree pour mën a indi solution yi nga xam ne moom la Sénégal soxla ndax loolu mooy suñu liggéey plus de 15 ans mi ngi ne ciy dox et ñu koy defal yeneen réew yoo xamante ne mënatuñu toog di ko defal suñu réew. li nga xamante ne nag moom mooy suñu taxawaay wax naa leen ko moom mooy indi des solution indi euh, euh, li nga xamante ne moom la askan bi soxla moom la réew bi soxla pour qu'on puisse asseoir son développement ci tànk yooyu la ñuy fekk te kenn duñu fekk ci beneen tànk. dinañ ko def man ak ñi ma àndal ñëpp ci teggin dañ ko def ci yar parce que loolu lañuy ñu soxla ci biir réew mi jàmm nit yi di mën a waxante di mën a jëfalante ci jàmm ak yar ñun nag loolu lañuy woote kenn duñu fekk ñuy woote nit ci xuloo wala ci saaga wala ci xaste fu ñu mënti woo ci suñu liggéey li ñuy jël comme condition la seule condition bi nga xamante ne dañ ko nañ ko nangu ci nit moom mooy principe ak valeur dès l'instant que am na ko rek ubbil nañ ko suñu loxo ne ko bismillah ñëwal ñu liggéey ma leen di wax tamit ne leen ñun doxaleen bi nga xam mooy suñu doxaleen amul président mooy décider ñenn ñi topp président beeg jaaykatu gerte bi ñoo am la même dignité amul benn benn benn xalaat boo xamante dinañ ko gis ci biir askan bi jàpp ne noonu loolu euh, xalaatu ku tuuti la donc duñ ko jëfandikoo képp koo xamante ne am nga xalaat ci réew mi wala am nga loo xamante ne mën nga ñu ko euh, jagleel tàllal nañ la suñu loxo. ndax li ñu tax a jóg du lenn du dul askan bi du lenn du dul Sénégal moo tax bu ñu ñëwee tey ba mën a yeggee loolu askan bi ah dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di gërëm sama waajur bu jigéen bi fi nekk ah, di ko di sàkku ci moom ñaan ndax liggéey bi nga xamante ne moom la ñu sumb nii xam nañu du bu yomb ah, di ñaan kilifa diine yi ñu ah, jàppale ñu ci ñaan di ñaan sénégalais yi ñu jàppale ñu ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu dugg que ñoom rek. ñoo tax ñu dugg ci liggéey bi ndax bu nekkoon suñu bopp la kon xam naa ne duñ fi sax taxaw di wax waaye dañuy jàpp ne nit ki bis boo demee ba taseeg sa borom a ah, man bugguma di layoog suñu borom ne ko ah bi réew mi di yàqu wala bi ma gisee am na yenn situation yoo xamante ne taxawul lan laa def xaw lu ma def bëgg naa taxaw ne suñu borom lii moo nekkoon sama taxawaay te jéem nañu te gëm naa ni loolu ñuy jéem ak dëgg di ko jéem ak pas-pas yàlla dañ ci defal sutura te bu ñu defalee sutura ci loolu lépp loo xamante ne moom la askan bi soxla dina ci gis boppam parce que loolu moo ñu tax a jóg. bu ko defee ma leen di gërëm bu baax a baax baax di leen di woo euh, vraiment ci liggéey bi euh, di ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla jàppale yàlla sàmmuñu sàmm réew mi ndax ñun amuñu lenn lu réew mi. donte nekkuñu fii nee nañu bëccëg ngi ci kaw waaye xel baa ci suuf ñu loolu moo ñu dal Sénégal lépp lu ñu am ci àdduna Sénégal moo ko gënal heure engagement bu jotee kon dañuy jóg sóobu ci engagement bi heure engagement bu jotee dañuy sóobu ci engagement bi donte amoon nañu ay appréhension ci politique bi mais di ciy sóobu parce que loolu mooy yoon ma leen di gërëm bu baax a baax bëgg naa lim képp ku fi nekk ndax képp toog ci salle bi tey mérité nga ma jaar ci sa tur képp ku fi toog mën naa jaar seen tur ndax mérité ngeen ko ma leen di wax ni jël naa à témoin suñu borom ne leen engagement bi ñu jël nii tey bis bu ñu naree dem bay xalaat di ko def pour ay intérêt personnel kon maire sax bëgguñu ko chef de quartier sax soxlawuñu ko lu ñu bëgg mooy lépp lu ñuy mën a def toutes les actions que nous allons mener dans le cadre de nos réflexions dans le cadre de l'action publique lenn du ko tax a jóg lu dul askanu Sénégal nous en prenons l'engagement et nous en faisons la promesse ñu ngi leen di gërëm Euh, bu baax ci seen teewaay euh, di leen di euh, remercier vraiment du fond du cœur di wax alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf merci opposition la ñu bëggoon xam ndax avant nga koy créer jot nga dem ci ñoo xamante ne nii say naataango la maanaam ñi nga xamante ne dañoo nekk opposition bi nga waxtaan ak mhm. est-ce que aussi fas yéene mooy est-ce que aussi fas yéene nga xool ñi am doole bi nga dem ànd ak ñoom liggéey ak Actubuzz Fatou Diop. Actubuzz Fatou Diop. Oui, une autre question. Quel organe c'est? Asalaamaaleykum euh, Petit euh, journaliste à Univers Info. Univers Info oui. voilà asalaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu assistance bi yëpp ki nuyu monsieur Niang di ko féliciter ci li nga xamante ni mooy rassemblement bi mu def pour lancer li nga xamante ni mooy parti alors seen première question ma ngi. tam li nga xamante ne moom mooy ñi mu tuddee euh, jiital wareef ñu bëggoon a xam rek bu lan mooy euh, wareef ci li nga xamante ne moom mooy engagement bi nga jël muy engagement politique bi merci. ok euh, oui. vous vous c'est quel euh, Sénégal Direct. Sénégal Direct, Nara Rassoul. spécialiste et consultant politique publique def ans d'expérience mhm. est-ce que mën nañ xam yan activité au sein du Sénégal bu fekkee mu bañu ci ñëwaatal parce que peut-être am na ñoo xam ne ñu ngi lay suivre la première fois ñu aussi def nga ay activités peut-être accessibilité bi wala information d'accord je pense que C'est bon question C'est bon euh, Il y a d'autres questions Il y a plus de questions Ah, dafa am benn question boo posé ok. alors ma continuer rek ci euh, deuxième question bi ndax euh, dañ fi tudd wàllum rupture ci li nga xamante ni moom mooy politique ici Sénégal mm-hmm. mais gis nañ que ni euh, folklore bi dafa xaw a am ci li nga ni moom mooy dajaloo bi mm-hmm. ndax gis nañ ni politique yu bari boo koy def xaalis ay tax te gis nañ fi ay séddale koppar rek mm-hmm. ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen géwël juddu di di ñëw taxaw di wax ak yooyu noonu bëggoon a xam ndax yow ci mouvance boobu noonu ngay continuer wala rupture bi ngay wax loolu di dund dëgg ok d'accord merci waaw donc euh, première question bi euh, soxna si ñu ngi lay gërëm bu baax euh, di xam ndax defoon nañu ay concertation ak ñeneen yeneen parti politique waaw ñun bi ñu décidé bi ñu décidé jël engagement pour mën a servir Sénégal. s'il vous plaît un peu de silence dans la salle pour que ñu mën a déggoonte. bi ñu defee le choix de l' engagement. li ñu mettre en avant mooy ay principe comme ni bu ko waxee sànq ak ay ndax dañu jàpp ni euh, réew mi su nekkee compétence euh, ak xam-xam yàlla daf ñu defal sutura Sénégal façon compétence boo xalaat mi ngi biir Sénégal euh, bépp compétence bi nga xam ne soxla nañ ko pour mën a développer suñu réew mu ngi biir Sénégal et d'ailleurs sax am na àdduna ci biir na bi dëkk yu bëri compétence su Sénégalais yi la ñuy jëfandikoo pour di mën a développer donc ñun bu ñu xamee loolu dañu exclure kenn waaye dañi liggéey ñoo xamante ne gëm nañu ñun li ñu gëm képp koo xamante ne gëm na suñu principe ak suñu valeur rek dañuy ubbi suñu loxo pour mën a liggéey ak ñoom ndax ñun ñun dañu jàpp ne engagement bi ñu jël nii du engagement personnel du suñu personne ndax ñun suñu personne du dara ci histoire du Sénégal moo tax ku ñëwoon tey di liggéey ak ñun ñu gis ni yow yaa ñoo gën a gëm li ñuy def amuñu benn problème sax di effacer parce que li ñuy mettre en avant mooy Sénégal ak le sort des citoyens sénégalais donc loolu moo tax euh, ma mën a tontu sa question boobu di wax ne am na ñoo xamante ne euh, waxtaan nañu ci ay possibilités de de de collaboration ku mel ni juge Deme bi fi toogoon sànq euh, nekk nit ku ku am solo nit ku baax koo xamante ne vision bi ñu am ci liggéey vision bi ñu am ci naka la réew mi war a tëddee imposé moom it ay concours vision donc loolu xam naa ni bëri na biir Sénégal donc dinañu euh, dox ay jéego euh, ndax lii ñuy def nii ñoon rek mënuñu ko il faut que ñu ubbi yaatal waxtaan ak nit yi yi nga xamante ne ils ont les mêmes contours ils ont les mêmes visions pour que ñu mën a ànd ci liggéey euh, ci sa ci sa ci waaw donc deuxième question bi sur la définition de wareef moom moom la waaw xam nga wareef dès l'instant que doomu aadama judd na rek wareef tegu na sa kaw ndax ñun dañu gëm ni bu Sénégal jiitalee wareefam ci citoyen yi citoyen yi jiital seen wareef ci réew mi kon je crois que nit yi dinañ jógee fépp ci àdduna bi pour mën a dëkk ñu suñu réew loolu la ñu bëgg indi ñoom faire en sorte que chacun chacun doomu aadama bu nekk biir Sénégal lépp lu muy def du matin au soir jëmale ko ci réew mi na ko def en terme de principe na ko def en fonction de son devoir vis-à-vis du pays lan mooy taxawaayam xam nga da ngay dégg souvent nit yi di euh, vitupérer état na état état état mais nit yi dañuy fàtte ne état ñoom tamit la moo tax ñun li ñu bëgg mooy amener les Sénégalais à cultiver le devoir ba devoir doon état d'esprit parce que devoir bis bu demee ba doon état d'esprit day épouser benn contour circulaire te bu épouser benn contour circulaire rek c'est-à-dire que amatul lenn loo xamante ne dinañ ko ragal ci biir réew mi ñun nag ci tànk yooyu la ñu nekk nous voulons que le devoir devienne un état d'esprit loolu moo tax ñu tuddee suñu parti jiital wareef le devoir en mouvement parce que devoir nekkul loo xamante ne da koy def vivre ko après nga arrêté il faut que ça soit un état d'esprit liggéey boobu nag c'est un travail de longue haleine mais gëm nañ ne bu ko Sénégalais yi épouser bu ñu bu ñu con épouser les contours de ce que je crois que incha allah li nga xamante ne moom la ñuy wut suñu borom dinañu ko defal. Euh, euh, soxna si Sénégal direct yaa ngi laajte euh, yan activité la mené au Sénégal waaw donc yàlla def na ci samay activité am na ay dirigé naa fi ay réformes mais dinaa la jox benn exemple bi nga xamante ne c'était entre 2011 et 2014 ndax ku ne xam na bu nekkee am na fi ay spécialistes de la justice. Euh, donc dinañu mën a euh, confirmer li ma leen li ma lay wax nii. Euh, Sénégal en ñaari ressort ñoo fi amoon yuy mën a traité li ñuy wooyee les appels muy Dakar ak Ziguinchor. léegi dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire dans le cadre de la de la réforme qu'on appelait le programme sectoriel justice man maa ko dirigé woon réforme boobu moom moo permettre ñu def li nga xamante ne. moom mooy la réforme sur la carte judiciaire pour équilibrer le traitement des rôles au niveau national jëlee euh, li nga xamante ne moom moo am moo nekkoon deux cours d'appel Dakar ak ak Ziguinchor yóbbu ko ci cinq kooku nekk premier élément benn bi nekk Ziguinchor benn bi nekk Saint-Louis benn bi nekk Dakar bi nekk Thiès euh, bu nekkee Thiès nga dëgg sax dem nga gis ni avant on avait un tribunal départemental léegi maintenant on a une cour d'appel Euh, avec un tribunal de grande instance kooku mooy première euh, réponse bi ma deuxième exemple bi ma la bëgg a jox mooy ku ne xamoon na ne Sénégal dafa moom lu ñuy woowee les cours d'assises cours d'assises dafa doon jur ay ay ay ay ay gàllankoor yu bare ci doomu aadama yi nga xamante ne dañ daan nekk en situation de détention préventive man maa bind benn rapport tuddee ko benn rapport sur la gouvernance carcérale boo xamante ne rapport bi moom moo déclenché la réforme du code pénal et du code de procédure pénale ñu supprimer les cours d'assises pourtant magistrats yi nga xam ne ñoo ngi Sénégal moo xam c'est des magistrats du parquet wala des magistrats euh, euh, donc euh, du siège merci boo xoolee bi ñuy def réforme boobu kenn àndu ci ndax dañ ma daan wax ne ma cour d'assises dafa doon loo xamante ne lu solennel la nit ci dañ ko bañoon mais dama bind rapport sur la gouvernance carcérale waxtaan ak ministre bi ne ko il faut supprimer les suppression boobu nag moom moo jur li ñuy wooyee les chambres criminelles permanentes moom ñooy euh, beneen exemple boo xamante ne de liggéey bi ma la mën a tontu et puis aussi il euh, y le travail qu'on a fait sur euh, euh, donc la collégialité donc des des décisions de justice ndax dañu gëm ni doomu Adama mu naree dem ba tribunal juge nar ko dugal biir kaso dafa il faut mu doon loo xamante ne c'est c'est lourd de sens il faut que ñu def ko ak responsabilité moo tax dama jàpp tribunal heure boo war a jël décision la décision doit être collégiale avec le juge des libertés euh, et le juge des des détentions à côté nga xamante ne xam na lan moo ànd ci jël doomu aadama dugg ko biir kaso ndax y beaucoup de vies qui ont été perdues comme ça des gens yoo xamante ne dugal nañu naan détention préventive xamuñu ndax def nañu xam nañu ndax def nañu wala boole defuñu et pourtant euh, da ngay gis des gens qui peuvent rester en prison wala en détention préventive pendant 4 5 ans wala en tout cas bu nekkee en affaire criminelle la su en affaire pénale la euh, wala correctionnel nit ki day nekk en prison pendant 2 ans alors que buñ ko jugé woon peut-être que euh, décision de justice bi mën na bañ a amat 2 ans donc lu mel noonu boo koy gis il faut que. nga nekk di euh, def ay propositions yoo xamante ne qui permettent aux finalement d'être prises de façon collégiale et non pas de façon individuelle donc loolu laa mën ci euh, ci euh, sa question. moom question bu ñu koy signaler si sa biir projet. Mhm. gis nañ nga énumérer points yu bëri. Mhm. côté santé. Mhm. côté écosystème bi. côté société bi. mais ci biir société bi am na ci ñoo xamante ni c'est des personnes vulnérables. on peut dire handicapées entre parenthèses. ban xalaat ak ban stratégie nga am pour waaw euh, question boo am solo nga posé euh, soxna si ndax euh, Sénégal moom mooy l'un des seuls pays au monde boo xamante ne nit ki dangay am benn laago rek rek société bi rejeté la loolu du yoon amul benn sénégalais en réalité question boobu ngay posé ñun dañ koy traité dans notre projet mais dañ koy traité de façon holistique ndax laago nekkul loo xamante ne taar la c'est pas un problème l'essentiel mooy nit ki quelle que soit sa situation de handicap li am solo moom mooy nga mettre ko les conditions et l'environnement qui lui permet de pouvoir s'épanouir et mu mën a jàng am ay lijaasa mais mën a liggéey également et loolu du nekk nekk lu jafe mais c'est une question de choix et de volonté mos naa dem seeti benn sant euh, boo xamante ne ay euh, way laago ñu fa nekk bi ma demee ba seeti leen waxtaan ak ñoom dama ne leen ñii en principe, les collectivités locales devraient prévoir une part de la commande publique ndax dañu nekk ay nit yoo xamante ne dañu am jom da nga fay fekk ay pères de famille et des mères de famille loo xamante ne seen différence rek ak mooy mooy handicap bi nga xam moom la am mais ñooñu il faut leur donner une part de la commande publique sur li nga xamante ne ci loolu la ñuy yëngu ñun nag ci réflexion yooyu la ñu nekk parce que euh, boo jëlee li nga xamante ne moom mooy ce secteur ku nekk moo ko yor nit ku am euh, ay cëram yëpp nit ku laago wala ku mënti doon l'essentiel moom mooy prévoir l'environnement à partir duquel nit yi mën a gis seen bopp te ñun ci tànk yooyu nekk moo tax euh, handicapé yi euh, nga xamante ne mën na dab ku nekk ci àdduna dañuy am benn place de choix ci liggéey bi nga moom nañ bëgg a def incha allah waaw donc sëñ bi posé la question euh, euh, du folklore waaw loolu man dama xamul ndax euh, folklore googu euh, dama xamul sax lan mooy folklore kooku peut-être dina dinaa xoolaat euh, signification bi mais lima ma a wax mooy dañu jóg pour indi benn vision bu bees Sénégal nag boo ko bëggee changer dafa am ay taxawaay yooyu am te lu bokk ci sa réew mënuloo ko beddi lu bokk ci euh, askan bi dafay da da ngay xool noo koy defaree mais euh, su nit yi jógee di am lu ñuy jëfalante seen diggante loolu mënuma considérer ne loolu dafa bokk ñun ci suñu projet wala dafa bon wala dafa wala baaxul duma am benn regard de jugement là-dessus mais li ma mën a wax mooy li ma li mën a wax mooy ñun Sénégal bokk na ci li ñu bokk na ci li ñu tardeel Sénégal bokk nañ ci li ñu tardeel mooy ñuy renier li nga xamante ne moom mooy suñu histoire mooy suñu caada xam nga tey euh, ku jóg tey am lu mu dégg xolam sedd si mu ekkati mu jàll ko bu ekkati dara joxe dara loolu pour man lu ñuy rafetlu la parce que ñun humanisme li ñuy woote man képp ku jóg def benn action boo xam ne sa xol moo ko jiital kon action boo dee noonu action bu dëgg même bu nekkee ñu ngi amener aussi les gens à user de leur raison pour aller de l'avant mais damay jàpp ne loolu du lu bon ndax war nañu gëm suñu bopp gëm suñu bopp mënul weesu ñuy dund li nga xam ne moom mooy suñu caada ak suñu suñu suñu suñu suñu cosaan donc moo tax euh, malheureusement dafa am benn mbir boo xamante ne euh, ñun bàyyi nañ ci xel ba pare donc may appeler le peuple sénégalais mu ci bàyyi xel gis nga euh, acculturation baaxul aliénation culturelle baaxul ndax euh, boo jàppee li nga xamante ne moom moo def sa histoire def sa cosaan donte am na loo xam ne nañ ko parce que dañu bëgg une société moderne mais booy ut modernité da nga koy def sur la base de li nga xamante ne moom nga moom ba pare moo tax je considère que loolu du fonk la jërëjëf